bisimilah mbokk yi euh, ñoo ngi ci ñaareelu kumte yi fii ci ndogo yi fii ci jannatul maxwa toog fii ci kër Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue di jëwriñu Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ñu dend ak euh, ñaar ñoo xam ne ràññee leen leen lool ci yoon wi euh, sëñ Cheikh Fall mi nga xam ne sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue moo ko jox kàddu gi ngir mu yëkkati ko jëme ko ci mboolem taalibe yëpp waaye ki ñu dendal ràññee ngeen ko ci liggéeyam bu am solo waaye yoroon kàddu yoon wi tamit waaye di jàmbaar lool tamit di Serigne Omar Doumbia sëñ Omar ñu ngi lay siyaar baax yaak sëñ Magay ci seen taxawaay ci yoonu Baye Fall euh, sëriñ bi ñu euh, fas yéenee rek euh, bàkkee ci kàddu sëñ bi rek. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu ñu sant yàlla jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ sëñ Mountakha Mbacké fii sëñ Touba di xaaju sol sëñ sëñ am na mboolu mel ne Fall mi nga xam moo toogal maam Cheikh Rahim Fall ñi nga sëñ suñ suñ kilifa gi di sëñ Safa Ndiaye Mbengue ñun nag wax waaye dañuy jéem rek ginnaaw dañ ci am ndigal ndigal ci kàddu sëñ bi nañuy waxee li wax ci kàddu sëñ bi nag sëñ bi moo ñu joxoon ndigal ñu wax bi sëñ bi joxee ndigal nag ñuy wax Omar Dumbu Yaay mi nga xam ne si sa jëm moo ko yar mu yaroo ci kanam daan nag liggéey nag ñëw di siyaar ginnaaw Omar Dumbu Yaay mu nekk ci kanam si sa jëm Fall yàgg si sa jëm Fall si sa jëm Fall di eh, mbokk si Seex Njaay Mbeng di benn si Seex mi wut si sa jëm Fall moo tax wax ci kàddoom waaye damaa bëgg a jàll kàddu yoo xam ne nag mooy kàddu soññee di soñ taalibe rek li may soññee taalib mooy nan euh, nan góorgóorlu di wéy ci ndigal tey bàyyi tere bu siñ bi digalee ñu def bu sëñ bi tere ñu bàyyi tey góor góorlu tey moytu maanaam di moytu daal tey moytu nekk ci taalibe ak taalibe mooy lépp ndax ak mooy lépp ndax lu waaye lu la waaye mën a jaay tuug taalibe ab saa sa appal la ko seerafaan li mu rawee nit ñi mooy ak taalibe ak jëf ndax seerafaan daa daana wax naan ba kenn ñu fay wax bàyyi jëf kon ni ñuy jëf jëf tu bàyyi wax képp kuy wax te jëfoo ñu bàyyi la ngay wax ñu daal loolu la fi nekkee ñun nag man nag ab dongo laa bu ne ci kër gi rek waa ab dongo laa bu ne ci kër gi damaa mënta wax nag waaye maa ngi jox si Amadou Mbuya mii maagale wax ji jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, sëñ Omar ñoo ngi lay nuyu di la siyaara euh, sëñ Omar tey nga ñëw di siyaare Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue mi nga xam ne mooy jëriñu sëñ Modou Moussa Fall waaye di jëriñu sëñ Amdi Modou Mbenda euh, sëñ Amdi Modou Mbenda liggéey bi nga xam ne si Cheikh jëmb doon na ko liggéey ba sëñ Amdi ne man du ma soppi waaye damay sof loolu lañ bëgg nga dikkal ñu ci ci liggéey bi nga xam ne tey gis nga yokkute gi waaye naka jëkk liggéey maam Cheikh Fall kanam rek lay jëm. bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla julli ci yonente bu tedd ba di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di jaaraamal Cheikh Rahim Fall Babul Mouridine di siyaare sama sëriñ bu baax bii di sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng di ñaan sama boroom guddal fanam te wéral ko te defal ko jàmm ju ànd xéwal ñaanal ko it yenu sëñ Modou Moustapha Fall ji moom njaboot sëñ Modou Moustapha yàlla na ci def ba def ci lu kay njortam di ñaanal sëñ am di mu sëñ Modou Mbenda Fall yàlla na sama borom guddal fanam te wéral ko ba yéen a gi maam ngir liggéeyal Cheikh Ibra maamam ak sëñ Modou Moustapha Fall sama borom defal ko ba defal ko lu kay njortam euh, maa ngi toogoon nag sama doomi sëriñ ku baax ku tedd koo xamee ni ku yàgg baax la ci lu baax rek lañ ne nit dana leen séen sax te doo leen xam ay nit ñi ñu yar lañ ay nit ñu nite lañ ay nit ñu baax lañ yoon wekk lañ ñor sëñ Cheikh ak sëñ Moustapha nit yoon rek lañ ñor ba ci sëñ Talla ñu gën a tuuti kenn mosu leen dégg ci dara waaye nag nit moom am na nu muy mel ci baayam la rek sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng la ne ci moom la def ci ay doomam rek yàlla na sama guddal seen fan te wéral leen te defal leen jàmm ah yoon wi moom xam nga ne yoon yoon lañ wax sëñ Cheikh Fall Baye Góor dane yoon daal buñ ko dee wax kuy dox a tax ku doxul bokku ci te xam ngeen ne yoon wi moom day dox rek sëñ Cheikh jëmb moom yàlla na yàlla dolli leeram te taas ñu ci barkeem ci barke sëñ Mourou Moustapha Fall toog na fi fukki at ak juróom-benn def na ci yoon wi loo xam ne ba ilaa mu musamman dootul raf waaye nag fam koo teg sëñ am di jëlaat na moo ngi def lu man moo ngi def lu mënut ñoo ngi ñaan mu yokk ñoo ngi ñaan jàmm xew ca ñoo ngi ñaan xewal xam ca ba moom it lim naa lépp sama borom yeggaleel ko ko ci tey bakkanam waaye nag bu leen fàtte ne Cheikh Ibra Fall dana yoonu sëñ Bamba bu doon ngoro ko tas man Ibra rafaal man la ñuy delloo can gi ko maay borom yoon wi njabootu kër Cheikh Ibra nag li leen sëñ Tuubaa bàyyiloon ba tey jii ñuy wax dara soppeeku ci lu toll ne tarafatal ay ni soppeeku ci ndogu yii ñu ne seen maam ca boppam sëñ Tuubaa ci joxum ndigal mu koy togg na ko Ibra Faal mu ne ko Mbàkke mu na ko damay séentu ay gan te gan yooyu laa bëgg nga toggal leen ay reer bi mu ñëwee ci kër gi mu dajale njaboot gi ne leen ndogu yi ma sëñ Bambay toggaloo ku ma ci jox lu toll tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal laa jëm wax nañ ni fii liggéey bi toll nii tembe tembe daana génn ñuy togg ndog yi jëm ci kër sëñ Tuubaa mu xool fi saxaar si ëppee mu taxaw fa ni ndogu yi ñu toggal sëñ Tuubaa de ku ñàkkoon ba mënatoo am dara boo taxawee mun a muy umute mhm. boo taxee saxaar si dugg la su kumute dañ boo wéri di woon ba ñu ñàkk ci yow yaakaar mhm. boo taxee bu la saxaar si duggee mhm. si wéri diggi gi dañ daal di wax ni ndogu yi may toggal sëñ Bamba ku ma jox lu toll tànk benn tànk mooy benn juróomi fistin nee na ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tabbal laaj sëñ Cheikh nag Ndiaye Mbeng man dama ko teel a comprendre waaye Baye Cheikh li li gars yi naan yàgg baax kii moo yàgg baax kon nag euh, moom bokk na ci ñoo xam ne yoon wi danoo ci ñoom yaakaar sëñ am di gis nga cër bi mu ko joxaat muy jëwrinu kër Cheikh Ibra cëram la moo ko moom ndax yoon wi mosu koo jam ci dara fu nu mës woote sa Cheikh dem na ak des situations yoo xam ne situation yi métti du jàmbat du ñaan doyloo baay doyloo baayam ak maamam toog di xaar ba liggéey bi fekku ci xanaa lu mu bëggul de waaye wallaahi asim lépp lu mu bëgg bàyyam bu tedd woowu dana ko ma teg ko ci loxom suñu xarit la suñu jëlee suñu àddiya dik ko andil dañuy sawar andil ko it nit la koo xam ni euh, dafa dafa dafa Baye Cheikh daal dafa baax ñu nag sëñ Maguette daal ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <laughs> kàddu yu soññee rek yu jëm ci liggéey bi mel na ne. Euh, ñu ngi ci fukki fan yi wala boog fukki fan ak benn. maanaam euh, yi li ci des euh, bëri na bëriwul waaye lépp gën a takkuwaat rek. gën a jëmalewaat liggéey bi. waaw li ci des bëri na bëriwul waaye. mbiri Sëñ Tuubaa Seex Faal lu mu gën a jëm kanam. mbiru si Tuubaa ak Seera Faal nu gën a jëm nu mu jëm a jëm gën a nu mu gën a jëm kanam di gën a am doole fi na ndog saa buñ ci nekkee bis bu gis bu ñëw rek day day ëpp ko doole ndax xew yi day gën a yokk xew yi li yokk nag mooy taalib gën a góor day gën a gën a am passif nañu gën a góorgóorlu te gën a am loolu daal laay soññi ku moo mën naa ko defoon benn na nga def ñaar ku defoon ñaar nanga def ñett ñu leen di ñaanal fa nu gën a ko wér sàmbal doole xew lu baax ba suñu too seer a fall moom daal euh, day dañuy dénk suñu mbokk yi ak mbokki taalibe yi maanaam képp koo xam da ngay wax ci rajo muy wax juy jàll na nga xam la ngay wax ndaxte wax dafa garaaw ndax wax day mën naa génn àgg foo xam ne doo ko fook te booba bu fekkee daa am ay ñagas-ñagal wa ay rëq-rëq mën na indi leneen kon nag yal nañu suñ yal nañu yàlla suñ doole dimbali rek wax ñu ko seera Fall waaw jërëjëf jërëjëf fi nga xam ne mooy Touba Jannatul Mahwa fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi euh, ñiy siyaar baax tey ñaanal Serigne Amdi Fall euh, moom sëñ Modou Mbène xalifa général des bay Fall suñ borom yàggal ko lool euh, téwéral ko mbokk yi tey la ñaareelu kumte njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ci ndogo yi nga xam ne Serigne Touba moo ko joxoon maam Cheikh Ibrahima Fall waaye maam Cheikh Ibrahima Fall amoon ci ndigal ngir toggal Serigne Bamba ay ndogu di ko yóbbul mu jóge fi la ko tàmbali ci Cheikh Moussa Fall ba ki nga xamante ni tey moo ko wuutu di ko def ànd kook mbooleem jaboot gi yëpp ñu teew fii nag ci janatu fas yéene leen a jëlale liggéey bi lépp loo xamante ni yoonu Baay Faal ñi ngi koy doxee ci weeru koor gi dara du leen ci rëcc bu yàgg ba léegi ngeen ci ànd ak académie nan gis ngeen mbooloo mi boobu ba léegi ñoo ngi dugg gis ngeen bool yi waaye gis ngeen mbaar mi nga xam ne fii ñu taxaw muy mbaar mi nga xam ne alali maam Serigne Fall ñoo ko liggéey ci liggéey bu am solo bu rafet léegi tey ci kanam incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen rek ci weeru koor gi yëpp incha allahu rabbi dara du leen ci rëcc ba keroog weeru koor gi di jeex. liggéey boobu nan ngeen ko taxawee ak lan nga ma mën a leeral tuuti ci eh, bu ngeen ko tàmbalee ba keroog ngeen ni ñu yanu bool yi. waaw jërëjëf euh, sëñ bi bu ñu bu ñu xëyee euh, li ñuy njëkk def mooy fi ñuy tàmbalee mooy suñu ñëwee am na ay murid yoo xamante ni samay moroom yi dongo am ñoom bu ñu xëyee seen yitte mooy ñëw fii ci mbaar mi xool nu ñu sellale liggéey bi ginaar bi ko soxna yi taxawoo fee ca waañ ba ba noppi ba indi ko ñun ñoo xool nan lañ koy sellale ba mu àgg ci loxol sëñ bi suñu agsee nag fi ñu njëkk a tàmbalee mooy dañuy fexe setal barab bi ba barab bi set wecc jëlal fi ay baas ak ay darab yoo xamante ni day sellal liggéey bi ba nga xamante ni benn suuf bu ci dugg wala poussière su ndab yi dikkee léegi kenn ku nekk da am cin ci borom ci ci kilifa yi euh, cin lu nekk dafay am toftal yoo ciy teg toftal yooyu mooy jiitu mooy li ngeen fekk nii mooy yi ngeen tiim nii su ko defee nag dëggi dëggi bool yi soo ko accès toftal yooyu nag bu accès dafa am ay dongo yoo xamante ne tàmbalee ko ci man mi ñu ñooy toog fii di ko saytu suñu accès dañ koy xaaj ñett lim bu ne dañ ko def ñetti cër ñaari dem Touba benn bi ñu yóbbul sëñ bi jox ñu ndigalul ñu yóbbu ko njaareem ca ca kër gu mag fruit yi bu dikkeet noonu lañ koy def lépp luy limub fruit mooy xeet bu mën di doon dañ koy xam ndax kenn ku nekk booy ñëw di indi say toftol da ngay def benn liste maanaam bind ci lépp lenn lu ne lim bi mu doon masalan bu dee orange nga ne nangam orange bu dee banaana nga ne indi naa nangam bu dee ay michu nga ne indi naa nangam su ko dee su dikkee ñun ci kayit woowu nga ñu yoon ci lay xool xam ni sëñ diw indi na nangam ci lii andi na nangam ci lii bu ko defee léegi cër ne ñu def ko ñett ber ñaari yi fee mu jëm Touba benn bi jëm jëm Njaareem bu ñu accès bool bu ne xam nañ fañ koy teg daf ci am yoo xamante ne moom ci biir kër gi lañ koy toggee mooy dal li ñuy wax dalin yi nga xamante moom mooy def dëgg-dëgg ndog yi yooyu mooy jiitu ci kanam su ko defee ñu rangale ko rang bu jekk lal ci ay sëri ay ay ay ay ay ay ay ay darab yoo weex tal wane ni lii moom lu sell la amul benn kii su ko defee ñu soog cee takkal nag toftal suñ ko tegalee siñ bi nag ba nga xamante ni lépp lépp tege na moom mooy moom jëm sëñ bi mu jëm si euh, sëñ am di Modou Mbende nga xam moo fi Cheikh Rafal ñaan yàlla sama borom yàggal ko fi moo mboolem njaboot bi day daal di génn nag xool ñu wan ko nag liggéey bi ni ko liggéey baa liggéey bi ngi doon liggéeyloo Fall mi ngi nii mu daal ñuy ñaanal ñu soo a yëkkati nag dem waaw li jëm ci wàllu organisation bi moom buñ ko tënkee rek en fait noonu la noonu la noonu lay demee waa jëmmi mbaar bi moom noonu la liggéey bi waaw moom ci bis bu njëkk bi ba ci ba ci ba ci euh, buñ ne wari nañ bis bu set noonu lañ koy defee. ak it euh, bëgg liggéey bi gën a la tege ci yoon dañuy dañuy dañuy dañuy sàkku murit bi ñëw day col colu murit ba nga xam boo ko nee jàkk da nga xam ne kii moom murit la. xamante ne su dikkee dana mën a xam ne lii moom alal li sëñ bi la ci sëñ bi la jëm ba tax na loolu lépp dafa bokk ci ci saytu bi waaw. waaw xool leen ñi fi daje bala ñoo daje waat lu mel ni am ak xamante gi ñuy xamante ak fàttalikoonte gi ak nammante gi te du dégg ku ne morom ma gaañ nga ma mbaa sax bu kenn gaañee nit ki nga gaañ moo lay jëkk a wax baal baax waaw ki nga gaañ bu le baloo ak xanaa jàmm am yow mi gaañee yaa war a baal ma waaye Baay bu nu rajee ki gaañu muy jëkk a wax ki ko gaañ baal baax ba di ngeen loolu loolu nan ko bàyyi xel te nu ñaan nag sëriñ am di yàgg fi te wér ak rakka boppam yi ak doomam yi ndax nun kat kuy am royukaay am na na ko ba noppi kuy am royukaay am na na ko ba noppi nu royatunu kenn ndax Cheikh Ibra li mu fi indi fekku ko ci kenn dañu ko ciy fekk waaye fekku ci kenn li mu defet ku ko deful doonu góob bi tey nag kër ga nga ne boo fa yoree jikkoom yaa gën ca kër ga borom kër ga du la génn du la mere nangu te doo bañ da joxe te doon yeexal naa am daraja joxe ko bàyyi saw sant di yow santam teg ko ca kaw toog fa suuf bu la yónnee nga bégee ko te bu la teflee nga raayoo loolu suñ Cheikh Ibrahima ko fi indi digganteem ak Serigne Bamba gaa yaa ngi nii ko la ci tefle rek nga defee ne sa aajo faju na tey dëgg la di sa ajo faju na kon nag yàlla na leen yàlla boole dimbali bis bi yàlla na ko yàgg fekke te yàgg ko tal te di ko man yàlla mooy na ngeen ma jaaw mm-hmm. Moustapha ni na ngeen ma roy suñ bàmba ni jëpp na ngeen ma liggéey dootu ma déggee leen mm. yàlla koy jaam la rusulaay ku ñu roy na suñ bàmba ku ñu liggéey la te xiit ma tin aw bi fu biir aw wajiyaati sa yam laat nee na mm. benn bu ci defar doy mm. waaye ginnaaw ñett yëpp ngeen def nag ay wurit ñeen ci saa def yéen saa def mooy Baye Fall mu Baye Fall maa ngi ñaan ngeen yàgg fi amiin sëñ Fall mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla na suuf suñ mën a bi doo fan amiin yaa sa rak yëpp amiin ak sa baay yëpp amiin suñ Saliou Fall bu ko neexee ñu ñëw. suñ Mbacke Fall bu ko neexee ñu ñëw. waaw ah, waaw li si mën a def lépp bu ma tegee sa loxo nga def ko. Ah, waaw boo xam doom ju baax. bëgg leen topp leen wooy leen ko sala. bi sëñ bi nekkee Mayumba la Cheikh Ibrahima tàmbali di wut ay xar loolu bay Ibrahima Thiam moo ma ko nettali li boppam ne ma rendi naa ca xar moo xam ne El Hadj Malick moo ko fees. loolu bay Ibrahima Thiam moo ma ko wax ne ma ku ko weddi ni ñëw ci man. bi sëñ bamba xamee fi Cheikh Ibra fi Cheikh Ibra bi mu xamee fa sëñ bamba ne ca maayom ba lay yar ay xarit laa biir di leen suusal ba ñu ñor mu jënd ay bërigo yooyu daan def ñetti nopp jënd ay piisi perkaal lal ko ci biir bërigo yi ba mu génn mu suusal ndawal gi ba mu ñor mu sotti ko ca ba mu fees mu tëral morso ya jël ku ga teg ca ñu suude ko te bu ñuy wax bàyyi gay yeel yi moo daan suude ba ñu koy ndawal yi mu di ko yónnee Cheikh Bamba ca bàyyam ba kon loolee mooy ni morso yu ko weex yi ma ba tebe sa tey morso yaa ngi ñu di ko ëmbi ndawal ki mooy morso ya Cheikh Ibra doon ëmbi ndawal ñu di ko yor mooy morso yi ba tey kon jërëjëf Cheikh Ibra waaye jërëjëf ñëwatug Cheikh Ibra Fall ndax la Cheikh Ibra santoon sëñ Bamba ñu ngi ci ba sa tey bis bu ne ñu ni ko dolli waaye wàññiwuñ ca dara lépp dañ koo dolli yàlla nañ fi yàgg di wér di mucc jërë jëf Cheikh Fall nee na kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee ci ndigalu suñu jëwriñ yu baax yëpp ki ci jiitu di sëñ Saliou Fall mu Cheikh Moustapha Fall xam ni moo daan taxaw fii sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mooy taxawaayu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda taxawaay benn taxawaay bi rek la la ma ko démb rek moom lay waxaat. mooy di gën a neex ci ab liggéey. te borom bi bëgg ko ci. sunu liggéey bii dañ cee bëgg ngërëmul Serigne ak ngërëmul Cheikh Ibrahima Fall. nee loolu nag mi nga xam ne moom la ñuy liggéey liggéey bii. taxaw na fii ñu taxaw. ni Baye Fall yi man Cheikh Amdi Fall Modou Mbenda soo xool seet na guy ci liggéey bi maa ngi di ñaanal di leen gërëm loolu nag bis bu nu xëyitee dañ koo jëmee kanam waaye deetuwul ginnaaw ndax yoon amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ndax moom xam na ni lan tegoon ci bëtam ca gisoon ko booba ba léegi ci loolu rek moom ngeen nekk. nee ko loolu mi ngi ci soññ bu baax gis na nag la sëñ Saliou daan wax rek di ko soññee yar bu ànd ak teggin akub dal ndax fi nu bàyyi koo fii la ak taalibi dëkk fi la yar ak teggin dëkk kon fépp fu nu jëm ku nu gis daa war a xam ni waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mi nii ci melokaan wi ak yar bi ak teggin yi ak defin wi ak dal gi nee loolu mi ngi di soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp rek ñu góorgóorlu bu baax a baax ba liggéey bi ñu ko tàmbalee moom ak si fii suñu borom dimbali nu ba mu àggee noonu mel yàlla bu ci am benn gàllankoor it yàlla bu mu ci am xanaa ñu am ci ngërëmul bi tax ñu ko def te yàgg ko defal lool kon sëñ Fallou nee na jërëjëf jëf sëñ baa ngi sant góor ñi mi ngi sant jigéen ñi di sant mag ñi di sant ndaw ñi di leen xamal ni liggéey bi xool seet na ci guyu liggéeyu kilifa ma mu waroon a teew ca waañ wa de xam ba ak yëngal mu ñor mu yëkkati indi mu teg ci suuf di laxas di yenu di yóbbu loolu lépp nag yéen ko ci wutu defal ko ko kon xolam seet na ci yéen guyu mi ngi dem di ñaan suñu borom saa borom yàlla liy gën a barkeel yàlla liy gën a li seet na fàll bëgg lépp waaye yàlla ko yàgg jëfe nag nee jërë ngeen jëf kon mën nañoo yëkkati ndab yi li jëm Touba ak Njaaréem ñu dem ci jàmm ñëw ci te nu waajal mbër ma ci sunu muy coupe bi ci mbokk jërëjëf euh, mbokk yi topp académie mi naan gis ngeen ci suba ak léegi ñoo ngi fële nga xam ne mooy jannatul mahwa fële ci kër maam Seydou Waye ga euh, ci kër xalif général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda gis ngeen subal ba léegi ngir ñu jële ngir jël liggéey bi nga xam ne njabootu maam gi ñu ngi koy def euh, ñu tombeek nag ñaareelu kumte bi nga xam ne mel na ne liggéey bi dafa gën a yokk li ñuy wax naan ku yokku yaa wàññi waaye Serigne Amdi moo Modou Mbenda yokkaat na liggéey bi ci eh, na nga xamante ni noonu la ko tàmbalee woon te day gën a yokk nag loolu lañ gis tey jii ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey waaye mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp gis ngeen andi seenub liggéey waaye mboolem seex si andi seenub liggéey waaye eh, liggéey bi nga xamante ni eh, waxtu wu jot ñu ngi koy taxawu ci weeru koor gi diiran weeru koor gi yëpp ba keroog weeru koor gi di jeex duñ noppi di leen won liggéey bi nga xam ne waa Kër Maam Sir Waye Fall ñu koy ànd ak yéen gis ngeen topp nañ convoi bi ba fii nga xam ne mooy résidence fii ci jumaa ji gis ngeen suñ ginnaaw noonu oto yaa ngi noonu di ñëw njaboot gi euh, vert blanc yi ak mbooleem njabootu euh, Maam Sir Waye Fall gépp rek ànd ak Serigne Amdi Fall moom suñ Serigne mel Mbène ngir indi liggéey bi kon loolu lañ leen jëlaloon fee nga xamante ni mooy Touba Janatul Mahwa waaye di sant baax tey gërëm euh, Serigne Fallou mi nga xam ne moom lañ àndal ci caméra bi ak mboolem équipe bi nga xamante ni ñooy liggéey eh, ci académie mi naan bàyyiwuñ kenn noonu leen ñuy noonu lañ leen di joxe dig daje eh, ci yeneen jamono rek incha allah àndaat ak yéen ci ndogay maam Cheikh Ibrahima wa yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah.